76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la. ah Turki Thiam empereur bi empereur le grand champion. ak Sëñ Tuubaa Mbakke di ñaanal bas mu ndaw yàlla na ko yàlla may ndam yu seddu guy. bas mu ndaw Koli Faye 2. te te Ada <laughs> non bas dama koy ñaanal lafal ko cat yàlla lafal cat a Fass mais bas état bi mu yor yàgg naa ko entraîné mais musuma gis ci moom état bi. dafa tiit. une semaine une semaine lu fi lu fi jar a wuti dañoo jàkkaarloo man waxoon naa ko bas ba muy dem man waxoon naa bas solal bolok waxoon naa ko bas dafa dëgër bopp waxoon naa ko. solal bolok waaw waaw bas kan man Xaadimu Rasuul laa doon wuyoo di musuma changé tur. kon ñu doon wax boucher. waaw ñu doon wax moom dañoo xamut. xam nga ay dof làmb ji dafa bëri ay dof ak ay fenkat ak duul kat Boucher mooy kuy rey nit te man musuma rey nit musuma doon criminel xam nga baat boobu dafa ma metti woon mënuma ci dara xam nga ñu naan le Boucher le Boucher le Boucher mel ni man rek nga daan dégg le Boucher mais genn wàll ko doon wax yëpp genn wàll gi sax dee nañ. <laughs> ñi ah? kenn déggatu leen waaw kenn déggatu ndax tooñ dafa baaxut xam nga Boucher mooy rey Boucher mooy suñu mbokk yi nekk Seras di rey nag yee xar hmm? kuy ah? nga naan boucher ci ci ah nañ waxante gis nga nit boo xam nga ah euh, rek <coughs> damay ñëw ci moom. Ah. barki démb la may jabar ji fukki million ak juróom-ñett. 18 millions. waaw ma ne ko da nga cee waroon teg ñaar muy 20 millions ndax yenn mbër yi ay ay mille lañ doon mayee ki fanweeri cent ak 75000 ak njëgu guro xam nga. waaw xasu ay million gisu mosu ko déggoo kooku fi nag mbër mu maye ah, xanaa ko ah, wane ah Eumeu Sène moom dégg naa bi muy takk moom mayoon na ci soxna si yow da rek mais mbër yi dañuy joxe xaalis bu bari man ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgut waaw mais mais ba pare rek oo ma ne ma père lii damay laaj ndax doy na wala doyu waaw ma ne ko jigéen luñ ko defal jar ko xam nga bi mu defee ay cinémam wane wane moog jabar ji pendant une semaine su fekkoon ni nit ñi xam nañ ci jabar ji lu ñaaw wala nangam da ngay gis seytaan yi génn gis nga fi ay sëy yuñ takk may leen dix millions rek ñu génn di tasaare ndaw si naan la daan def léegi kii kee nag dafa bokk ci fay bu baax jabaru Reug bokk ci fay bu baax jigéen ju rafet jigéen ju yem palaasam xam boppam moo tax bi ñu fukki millions ak may ko ko nee naa ko mérito nga ko macha allah suñu gambien bi bokk ci famille bu baax nag Reug bokk ci famille bu baax kuy sa baay kuy sa baay ñu ne jaagan gan kuy sa baay a ne papa kan. kuy sa baay ñu ne alaaji kan. dégg naa sax fan yi sax ñu ngi géem a dugg ci estafu Reug Reug. ñoom ñoom waa Kër Sa Thiès di dugg ci estafu Reug Reug sax di géem a am ñu ñuy luqati ñu ñuy waxal ak ñu ñuy kii mais ñun. pour lan pour corrompre non pour corrompre lépp fi la mais billaahi wallaahi ak noddu gi maa ngi wax képp kuñ ci kuñ ci kuñ ci woo téléphone nga jël appel. barki Serigne Fallou dañ lakk sa gat barki Serigne Fallou Mbacke bii bu buñ la joxee luñ la mënti jox ku ci jaay foqale wala ku ci jaay gëmadi yàlla barki Serigne Fallou di nga ko digaale ak man. yow Sa Thiès bu la woon jox ma boo ba ma joxoon cinquante millions. déggoolu ma 50 millions ak ba ba may dee mu du ma jox 25 25 000 dépasse bu ñëwee ma boole ko ma boole ko xaalis bi yëpp dugal ko ci musiba man Ndiaye la sant nag. ko ñi corrompre bokk ci. maak maak Ousseynou Ndiaye ñoo bokk benn baay. maak Ablaye Ndiaye ñoo bokk benn baay. maak Abdou Ndiaye ñoo bokk benn baay ñu ngi fii ci rue Torbiac. mais information foo ko man man man làmb ji attention nag dama dul wax rek mais su ma waxoon sax mu ñu tëj làmb ji. la ilaha illallah li ma xam ci lamb ji. Ah, barki Serigne Fallou Mbacké billahi bu ma ko waxoon. billahi am na benn promoteur moo fekkoon muy liggéey morom promoteur am ci benn Serigne. lu wax ñu ngi koy gis. daa tiit ba ni ma papa la ma doon woowee korok papa daa tiit ba ne papa papa Xaadim. man non man rek damay jóg damay jóg ci sama bopp xanaa xamoon nii man lenn lenn mooy sans problème du ma fekk lu ñaaw. bii leex wallaahi ñaanu ma yàlla sax fekk lu ñaaw Fatima nañ bàyyi xale yi ñu bëri xale yi ñoo toll ci ay millions tey ñun amuñu chance boobu ñoom ñoo ko am nañ leen ko yéene. mais promoteur bi nga ko fekk muy def. waaw joxe fa ay turu ñetti promoteur. waaw. moo xam nga. ñetti promoteur turu waaw xam nga moo lay wan ni. léegi après moom lan la sëriñ bi. sëriñ boobu. taalibe sëriñ Fallou la woon. mais da mu liggéeyal leen. waaw mais mais kooku mag la woon. du def lu ñaaw. ok moom lan la la ci jublu woon. non xëy xëy na lu bon te ñetti promoteurs yooyu. am na ci koo xamante ni combat am sax dafa échec. waaw mais yu bëri xam nga ñi ñaa xanaa xamoo ni. combat Pape Abdou Fall bii mu tëgg nii Siteu ak Papa Sow xanaa xamoon ni la ca xew sax dañ koy sant yàlla. kon turu bokk. déedéet non bokku ci mais dama ne Pape Abdou Fall eh, ko ngem ku ko ku ko liggéey dootoo doon góor. dama la wax Pape ko liggéey dootoo doon góor. waaw man de promoteur bi lan la la wax. la il Pape Abdou kenn laal ko kenn du ko laal. barke si promoteur bi ba mu la gisee kër Serigne. xalaatul ne dinaa ñëw foofu. waaw après bu ma duggee laa xam ne kii ak bëti bëti leew yi ndax damaa ñëw rek mu yëkkati dix mille jox ma. te yàgg na ñoo daje ci stade musuma jox sax mille franc. xam nga yow ku baax nga yow yow si da ngaa dëgg ko laa xam ne kii ba am na lu ko tax a jóg. mu ngi may dégg di dégg mi ngi may dégg bu baax moom xam na man xam naa mais as kenn du ko weer nañ bàyyi ñaaw yi ñuy def. bàyyi doomu jàmbur yi ñuy kar. kon mbëri ñuy wax du ci mbëri de promoteur. ñëpp yi promoteur bu ci jógul sa bopp xam. dañuy diggante seen barki Serigne Fallou Mbacke échec loola sax la échec loola. déggoo ma leen Pape du Fall mën na ci ba ñu yëg dara sax mais combat Siteu bii barki Serigne Fallou Mbacke am na ñoo xamante ne buñ jour ba bu buñ sañoon sax du am. léegi après bu ñu jógee foofu am na beneen combat Ama Baldé. yaa ngi fàttaliku Pape du Fall xam nga dañuy dañ dañ ñëwoon oto yi dañuy oto yi dañuy grève jouru lamb yaa ngi koy rappelé combat Siteu man maa taxaw ne Pape du Fall laaj ko mi ngi may dégg ma ne ko làmb ji day fees del barki Serigne fallu Mbacké man ndax duma ma ànd ak nit rek di la seetaan dañu dem ba ci biir tuuti ñu ne bàyyi nañ oto yi ñuy daw. am ginnaaw xam nga xol bu lépp xol bu rafet la la ma yàlla di fay man nekk naa ci làmb ba bàyyi ko barki la ilaaha illallaah musuma turu ndeyu Serigne turu ndeyu mbër mi wala baayam billaahi wallaahi tallaahi barki laa ilaaha ak Tapha Tine noo gisee ko. <coughs> pardon maa ngi dégg Abdou Bakhoum di classe sax Ama di classe sax. Tapha ndax moom mën nañ ko ko nangul ndax position bi mu nekk la ko nit ku nekk boo nekkee sa yor sa poulain am nga droit wax ci lu la neex mais Ama bale Tapha tey dafa def preuve Ama da koo daan mu ñëw daan daan Boy Niang kon 1 la kon 1 la kon bu demee ba lamb boole leen. lamb jooju lamb ju neex la war a doon. kon lim na ne defi def na preuve am Tapha mi ngi def preuve am ndax ku daan ama ku daan booy ñaa ah ku booy ñaa rek ah tey mën naa ni boo daanee Ama Baldé daan nga booy ñaa boo daanee booy ñaa daan nga ama ndax ñoom ñoo def pour cent kon combat bu d'accord naa ci su fekkee dara doxul seen diggante ñoom ñaar bu amee promoteur bu ko dox yàlla na sotti ndax sa Tapha Tine nag champion la RPR mbër mu ko jël mbër mu ko jëlul guddi yi da koo ragal. guerre kii bi nga doon dégg nag comme comme mosoo cee ak Ama. non Lac de Guiers ak Ama damay man damay bëgg nit kuy fonk wax kilifa ndax loolu su amoon li muy yàq moo gën li muy defar xam nga li tax sax amul ba léegi xëy na ndimbalul yàlla la ndax Farlaay nekkoon na ci làmb borom baatin la ay kàddoom bu fekkee loolu moo ko wax jàppal ni làmb jooj du am. kon lu Jules Balde wax d'accord non naa ci wax kilifa waaw la sant te Jules Ama mën na doxee fuggum rek ak fuggu jeunesse ak bëgg a bëre mais tamit loo bëgg a bëre bëgg a bëre am na kër goo xamante ni day am kilifa kër gu amul kilifa. mooy loolu te te Gilles Balde li mu wax tamit ku nekk mën na ko nangul xam nga ku nekk mën na ko nangul mën daal làmb ji damay bëgg ñuy ñuy kañante di defante lépp te bañ a waxante lu ñaaw ndax lu ñaaw ñëpp a ko mën ñëpp am fit ñëpp kenn ragalu fi dara mais tamit aussi ñu ànd ak xel ndax xel du ji bo xel du jariñ borom lu dul xalaat man loolu laa bëgg di wax Mama Lamine euh, bu Siteu maa ngi koy ñaanal yàlla gën a teggil ko lii ko dal ndax ñun ñëpp suñu njaboot lañ ndax li ko dal ni metti na trop xam nga sa xarit sa seex def ko noonu du denc sa image te booy bu ku ko xam-xam ni booy bu yiw la booy bu baax la man fu ma fekk peer ñaari loxo la may jox moo tax nit ñiy wax rek bu coow yu mel ni amee nit ñi dañuy wax rek ba wax loo xamante ni waruñu ko wax mais il faut que booy bi ñu gën ko encadrer gën ko jege xam nga di gis ni yaayam tamit nit ku baax la ki gaañ ki ki rey nii tamit booy bi man bi mu gaa bi affaire bi amee laay doog a xam ni Malamine mi seex la mosuma ko xam xam nga mais Malamine ma Malamine laa gën a xam jox na ma cër ñoom ñëpp ma jox cër ndax suñu njaboot lañ kon su lu mel ni amee tamit dañu leen di masaw di wax ni yàlla na fi géej daal. Siteu fondation Tarkinda bu mu def nan nga ko gisee. waaw loolu mbër yëpp a ko war a def. loolu sax yàgg na ci moom yàgg na ci ndax ci ay ay yu ko jiitu suñ ndox ma saana taafoo day dem jël ay moyen jëndi pompe jox leen loolu booy bi xolu yërmande la yor loolu yàgg na ko def xam nga sarak nag boo amee sarak ngeen nekk gox bi ngeen sore woon teewlu mu jox la cër di def lu mel ni da nga koy ñaanal yàlla na ko yàlla ful ñëpp jàppale ko man maa ngi nii sax bëgg naa def fondation mm-hmm. waaw bëgg naa def fondation mais su ma koy def damay dem fokk bokk ci fondation Servir le Sénégal muy Marème Faye Sall muy tey xam nga boo gisee ma di ko gërëm tey dama gis caaro gi fii suñu yaay yu bëri ak suñu papa yi ñu retraité am nañ ay bourse familiale te kuy def lu baax nag kooku wax la bëgg mais neexul ba neexul mais président Macky Sall moo fi ne ku mu neex ku mu na xarit président Macky Sall moo fi ne léegi nag réew mi nag maa ngi gis sax benn waay bu ñuy wax Mollah génn taxaw di wax ci Mame Boye Diao yu ñaaw sax gis dégg ngeen ko yu ñaaw yoo xamante ni sax nopp bu ko dégg ku ko dégg taf gémmiñ te genre yooyu ñu ay nitu dara Mame booy Diao man li ma ko xamee xam ko ci yar bi xam ko ci teggin mu bokk nag fu baax moo laa moo gét maa ngi leen di wax nag fii laa leen ko waxee mu ngi laal laalaake boo xamante ni laax bu tàng jër mën na ko cee fekk xam nga dama bëgg ñuy delloo si xel yi te xam ne réew mi ñoo ko bokk xam nga opposition war na mën a opposé wu ci njekk ak teraanga ba ko yàlla di ko jox réew mi mais su fekkee da ngaa nit ñuy yebal di saaga ba boo jëlee réew mi yow it ëllëg mën nañoo retourner saaga yi nga doon saaga ñu di ko delloo ku leble ku leble ñu fay la rek la nga nga rek la nga leble woon daa baaxul. Amath Deme Gabar Singh amaat ngeen beneen combat. waaw dégg naa ko. waaw dégg naa ko nag dégg naa ko ci nit ñi ñu ne Amath seen Amath Deme Gabar Singh yàlla ko ci yàlla may ndam ndax ñu man euh, xëy na mën na ma oo sax jotuma ndax sama téléphone damay sànni rek mais yàlla ko yàlla may ndam làmb bu mu ko xeeb. boo tolloo ci bëre bëreel xam nga lii day wane ni Eumeu seen day wane nii booy bi euh, euh, Eumeu dem mu ngi def la grandeur su ko neexoon mën a seeti ñeneen mais dafa seeti Gabar Sine ñëw may ko sens kon lamb jooju yàlla nañ ci yàlla may ndam quoi. Alboury ak ki nga xamante ne moom mooy Issa ñu ngi dégg gars di ci wax. waaw noo gisee combat. waaw ngi naan Alboury comédien la Issa bu ko jël comédien boo xam day kum jàpp daal na la kooku mënu ma ko jàppee comédien c'est que Alboury day dox ci maayinu booy rek. di leen comme comédien bu arbitre ne fër mu dëggal boppam xam nga tey combat boobu tey bu taxawee bu fekkee ni fay nañ Issa lu ko jar dama naa ko na ko jël bu fekkee nii moom moo yor cëkkalu guyam nag du mën a ko forcer ne ko jël mais su xoolee ba xool ni arrangé na ko ñu fay ko lu ko jar na sëgg bëre ndax jamono ji làmb dafa xaw a metti soo amee benn temps bi rek profité ci ndax doole du xaar kenn xam nga boo ci tolloo bëreel xam nga lu yàlla may nga jël te Issa xale la bu continuer entraînement am teg ko teg ci yoon wi ñu ko teg mu tegu fa lu mu bëgg ci lam mën na ko am. amaan te contentement pour yéen ñu doon suivre sur Kewel Info Khadim Ndiaye lañ dalaloon waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy actualité gëj ngeen koo gis mu nekk koo xamante ne à chaque fois dañuy sawar a waxtaan ak moom ndax il est trop trop actualisé moo tax tey ñu seet si ko ah di ko jaajëfalaat bu baax a baax di ko wax lan mooy kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj mooy Fatima la wax ni dañ lay sant xale bi xew ci jamono. di sant suma caméraman bi nga xam ne gentleman la moom quoi waaw jibi jib Sow le grand cadreur mais Fatima damay wax ni gars yi xanaa dañoo katarak wala lan la man chaque ma def appel ah. waaw man damay def appel sama. jë ah kon. kon nag am na ci loo waa waaw Fatima maa ngi lay sant kon Fatima. Hmm. ñaar xamul waaye ñett xam na naa naa tàggoo maa ngi sant monte internet yëpp ndax man yéen. dama leen di sago ñu nekk ci diaspora bi samay xarit lañ diaspora bi yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen a xam li ngeen bëgg di wax ni réew mi nag metti na trop agresseurs yi bëccëg sax dañ koy agressé dëgg la jamono metti na nag waaye nag bëgg lu yomb a ngi ci doon xale bu ne pëng yor sa doole war a dem mën a gasi foos sax ñu fay la ah wala mën a jël ci madd ji xew léegi syndicat yor sab saret di jaay defoo ko lu dul jigéen romb la yorub saagam xamoo lu nekk ci saag ba ñu ne la jamit paaka te mën naa am sax ay mouchoir rek a nekk ci phase ak ay ay faar ak ay rosa léegi looy wax yàlla sàcc naa saagam mais ay rosa laa ci fekkee ki morso malaaka mi da lay mbugal yàlla ñuy dañ géeb a liggéey nañ waxante dëgg nañ liggéey nañ liggéey nañ dem liggéey dem may def di liggéey ñu jël sama saak. saak waaw xam nga xoolal Fatima fii la doon daaw. fii tonnerre ak kii Giro Seras Jibi teg xam nga xam nga kooku da laa topp. xam nga ni mu la gisee nga jongama pour moom yaakaar nañ yow ak ni ngay génne ci kii bi àddina ak li ci biir mi ngi ci sa saak bi te wóor na ma ni ab téléphone la cay fekk léegi bo léegi ana pièce da koy sànni Fatima nañ delloo si xel yi xam nga man maa ngi nii sama compte cinquante mille newu ci te xam naa point yi ñuy dóori pour mu wàcc barki sëñ Tuubaa mais bëgg lu yomb rek la yàlla ñu yàlla xiir ci lu baax yàlla nañu yàlla xiir ci wax lu baax yàlla nañu yàlla xiir ci def lu baax ndax mbooloo mooy doole yàlla nañu yàlla jàppale suñu mbokki mbër yii xale yu ndaw yi yàlla na leen yàlla jàppale ba ngeen doon ay Balla Gaye doon ay Reug Reug doon ay Eumeu seen yàlla na leen yàlla jàppale man xale yu ndaw yi maay seen avocat de des na tuuti promoteur bu ci tëgg mbër jox ko billet leex ca lamb ja laa fekk billaahi wala ndax xam nga dafa metti quoi Fatima ngay doon xale bu ndaw di bëre ñu jox la lu mat ay cinq bloc nga jaay ko fay sa bopp jox la ci des promoteur bi Fatima metti na yàlla ñu yàlla jàppale di nuyu Fallou Ndiaye di nuyu ñëpp yàlla ñu yàlla defal jàmm wa zahir ak bawaatin jërëjëf mbër gàlle yaay